أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا soxna jaara nag dañ koy ñaanal moom ndaw la ñu ñaanal ko yàlla musal ko yàlla aar ko yàlla sàmm ko yàlla def ko mag bam dem ba meññet ñuy génnee ci moom meññet yu ko raw gën koo rafet di génne ci loxoom di génne ci ay daaraam loolu lañ koy ñaanal yàlla ko yàlla def ginnaaw loolu nag mbokk yi lii day dëggal résultat yi feeñ Malaisie yi day dëggal ne ittihaad bi nga xam ne moo ko organisé woon ànd ak Sénico organisé woon daaw ci weeru koor bi concours national bu alxuraanul karim day dëggal ne la ñu génne woon dëgg la soxna jaara mii moo nekkoon première Mouhamadanil Mujtaba xafidahum allah nekkoon deuxième di ku jàmbaare moom it di ku mën alxuraan ci rafet la ko lool nekkoon deuxième ñoom ñaar ñooñu kon principe yi tànn gi am na ko doon laaj nan leen def ba ñoom ñaar rek ñu dem tànn gi mi ngi tegu ci concours national yooyu ñuy jël ñu nekk ca bopp ba bu ñu àdduna bi laajatee ay ay candidats ci ñooñu lañu sukkandiku pour yóbbu leen. yàgg nañoo Sénégal yàgg nañoo participer loolu ci concours alxuraan yi waaye meññeen mu mel ni dawuñ ko am xëy na tànnin wa xëy na ci la daan doon ak wàccaay ya waaye lii kon firndeel la loolu màndargaal na ko bu baax baax. nekkuma ci dëkk bi ñu bari ñoo nekkoon ci dëkk bi ah, xanaa liñ bokkoon ci musa ci concours bi ñu bokkoon ci Sénégal bi rek moo tax ma bokk ci ñi génn mbégte rek laa ci àndal waa seere woon na seere woon seere wut ndax ñëw nañ ñu bari ñoo bokk ñoo ñëw woon ci ci ci concours bi ay réew yu bari lañ kenn ku nekk dangaa teewal sam réew ñëw nga pour bëgg jël première moo taxoon xaw xaw naa metti xaw naa metti ci côté xaw xawoon metti waaye ñi nga xam ne dañuy saboté alxuraan day alxuraan day jot a saboté alxuraanu karim dañ ko dañoo war a bokk ci ñi ko war a yëkkati ñi ko war a ci lañ ci lañ war a bokk may ñaax sama moroom sama moroom yi sama moroom yi nga xam ne dañoo toll ci jàng ma leen di wax ne leen ñu jàngi jàngi alxuraanu karim ndax bu ñu xasee ba commencé jàng alxuraanu karim bu ñu ko mokkalee lépp luñ bëgg a mën dinañ ko mën incha allah.